logiquement. ñoo you fii ci unité 4 ñoo you feed in the cup? fii 90 la fa suñu góor gi dëkk lii musuta am ci koñ bi musuta am ci koñ bi ñu ko indi nag bu amee dañ naan lan la quest a lan la lan moo ko waral mooy BRT bi nga xam moo aw fii ñuy liggéey ñu ñëw ba fii fàtt suñ too central bi nekk fi nga xam ne moo doon jàlle la ndox baab yu bagage am yëpp yàqu na samara tousa yàqu na lali yàqu na lépp yàqu na te responsable bi état la ah. du kenn état la du kenn pour moom suñu suñu ma dama lay wax gis nga lii c'est ça gis nga lii ni mel gis nga kër gi fi mu toll côté yaa ngi nii nii nii nii musu fi am di ma xam suñu paa bi bu baax a baax te fii Hydro-Québec Hydro-Québec la moo ngi nekk en face de chef de quartier en face de chef de quartier moo ngi nekk fii nii si te bu ñu ko fenn sa jël affaire yi sa jël affaire yi xoolal ma lii xoolal ma lii xoolal ma lii porte yi yàqu lépp yàqu ci responsable état di waañ bi xoolal ma waañ. waañ waa ngi nekk ba. xoolal ma fii saal na saal saal bi muy ak yére saal bi muy ak yére ay gànnaaw lépp lépp lépp lépp. Soufiane c'est honteux c'est honteux xoolal ma lii. nekk Samra Coussé maire bi ni Samra Coussé duñ ko gëm bi ñuy tëdd Samra bi ngay di fay lan Matar Matar lii dafa garaaw lan di fay ba ñu ba léegi waaw parce ba léegi li mi ngi dox xoolal ma lii xoolal ma lii xoolal am waar baa ngi fay c'est que kuñ ko waxul mënoo gëm ñu ñu ñu ay quoi lalu xale yi la ngi di baaja matlay, lalu xale yi la lalu xale yi la. gis nga gis nga lii lii.